dund bi <coughs> dañ jàpp ne ci festive period bu jotee mooy ay tabaski ay korité euh, léegu-léegi di ci gën a bari euh, lu mel ni comme mburu ak jën dafay manqué ci réew mi du ma ne ci marché bi waaye ci réew mi ci boppam euh, loolu nag phénomène bi nga xamante ne luy am la ci toujours mooy all the time daf day am nekkul lu lu bees ci réew mi at bu nekk amaana dañ cee cof rek def ci small wala sot wala brief analysis ñu move on bu fii ak week si kanam ñëpp dañ koy fàtte léegi ñu jàpp ne lan mooy waral loolu ñun ay doomi réew mu ngi lu mel ni comme mburu buñ jullee euh, second day third day ba fourth day after tabaski wala korité mburu du am ci dëkk bi loolu mu nekk ay problème euh, te lan lañ ci war a mën a jàngee Modou ñan ci réew bi nga xamante ne mu ne dafa bëgg a dem develop situation bu persiste mooy mu nekk di am di am ci ay yées ci jamono boo fàttalee ko former président Jammeh daf ko doon jàngat mu ne boo demee ba ci tabaski bu jotee boo demee ci géej bi du fa fekk kenn daanaka ñëpp ci beneen réew lañ jógee daanaka ay Sénégal dañoo dem julli ji buñ demee duñ am mburu duñ am ay jën te situation boobu lan nga lan lan lan lan nga koy lan noo koy jàngatee. waaw different way. waaw liñ ko mën a jàngatee wante lu doy waar la force to force yoo xam ne duggan si réew mi te léegi sax amul lu ma gis mooy ne fuur yi bari fii mhm. Gambien si ñoo leen moom. legi kana ci mbiri nap gi maybe biñ ci demé mën nañ wax ne ayna 5 la ci Gambia am or something like that mhm. waye comme fuur yi yow loo xam ñi di dundé gambie xam nga dafa bëgg mbour bu kay amul mbour wala ngol c'est problème absolument bitik bo dem amul mbour amul mbour lool ah. dafa dafa yéeme mhm. fuur si ay Gambien mom ko firiñ bi nekk fi kuréel bi mu ngi am lan mo wara a tax muy wara a ci si moment bu nga xamné ni demand bi ci la am hay demand bi ci la gëna a ci la ko jamono buñ ko soxlé la dee mangi la waaw soo dafa yéeme. Mm-hmm. loolu loolu lan moo ko waral. Mm-hmm. xam nga tudd nga fi léegi président Jammeh. Mm-hmm. nit ñi adresse nañ ko dafa bëri affaire waaye gis nga problème yi la doon gis. ba tax mu créer seen furu boppam. nguur nag Amadou ku ko jiite. da ngaa seetlu askan bi soxla. nga see dox nga see dox. di si indi ay pexe di ko tegal askan bi. waaye doo toog rek seetaan nguur da ngaa indi seet da nga ñaax askan bi si li leen di dimbalé yow yaay fekk ci askan bi carrément tegal leen lu leen di dimbalé pour yo nga mëna a mucc nguur lolu moy taxaway nguur bo dem rek tok wax na la ñi li nguur li exécutif am nañ sen everything da ngay dégg bu ko bu leen one week si fridge bi li fa nekk du sen jabar yi soxla pour demande match way nag ninety nine point nine amuñ lolu ci réew mi hmm. way fokk nguur di outal pexé askanam lolu la jàmmee don def ba amone fi ay four kanin laay oh, family farm waaw mm. yàkka nañ ko si lu ne ba dama leen ne sa démb tey moo la koy jàngal sañ-sañ bi lan moo ko indi mm. parce que su fekkee ne ñoo ne fariñ am na nekku dafa manqué mu fi kuré mu fi par exemple waaye nga dem ci tapalap yi euh, ñu koy defar tey lu doo mun a rek ñu ne euh, matta moo amul ci dëkk bi waaye da nga gis ne situation bi dafay toll bi di nga mën yow soo demee ci bitig bi daf la dañ na ba nit ñi taamu ko sax léegi dañ la wax ne seconde ak julli ma mburu du am ci dëkk bi. waaw léegi nag loolu problème te ba pare problème te situation bi nekkul lu bees. non kon li ma ko waxee loo fi nekk la ñu koy dundee. Mm-hmm. waaye gis na saa yu nekk boo xee buñ ci waxee ay fan rek ñu noppi ci gisuñ kilifa yi farlu ci dafi taxaw fexe rek régler situation boobu. loolu mooy problème bi nag moo tax man leen nguur it's not only dugg flyet bi dem wala ministre bi dem defar ay yoon déedéet gis nga lu lu askan bi di dundee. Mm-hmm. dafa war a bokk si lu itteel nguur tey ministre of moo waroon a jël dis responsabilité téyel ko boppam go five years ministre yi boobu mu ngi fi ci nguuri jaw euh, kii Baro tey waroon nañ xam yan solu mécanisme yene teg yoo xam ne ni dina mën a dimbale askan bi yi su amee nit ñi duñ am problème yi pour mun a am fu ñoo jëlee mburu absolument loolu nguur daf si war a bokk ñaax si askan bi am lu mu tegal boppam loo xam ne ni fuur yu nga xam ne ni spécial pour loolu la su ñu demee ñii ñoom laka dem si main Johnson si taxaw fa. Ah. mun a soblaay nit ñu am sa wax bi soo gisee tey ci réew mi ñu bari mun naa wax ne bu ñu xoolaatee mun naa wax ne dañooy namm former président Jammeh mooy situation yu mel nii. mburu bi jotee buñ koy buñ buñ bu seeree mu fexe mu ñu nuñ ko amee ci nu mu gën a ndawal di same thing. ndawal di same am na fu moo loolu yëpp initié na ko fi. initié na ko. waaw donte ñu ne dugal na loo xam si bis. am na sax tey ñoo ko waaye objectif bi mooy am na ñi nga xamante ne. man-man bi nekkul fa te ñu wara a ñu wara ñom tamit dund dund bu baax. way foog nga soora len ci doxale ministre of tourism bi sa musna ko camping. dégg benn campagne. waaw waaw ngaññi nañ ko nak mu mu mu président bu nga xam dina jaay geej gi dina loolu la noo yaay jaabe dina jaay netatu dina jaay lu ne. way mom tay na fexé jaay loolu ndax askan bi mëna mucc ci lu sér lam doon ŋàññee président boobu ndeke président boobu lam doon def la askan bi soxlo pexé yoyu mo doon mëna dimbalé askan bi dafa gis né mënut forcer nit ñi ñi def lu leen né mu dem li créer ay mburu xolo tay bo mburu yi niñ baxé muy jaay ay xar dem di jaay yapa am am ñu am ko bu gaay jaay jaayee hundred dalasi mu jaay mu jaay 90 absolument mu ngi doon ut lu dimbalé nit ñi xeyna di wé bu mu ko don défé la waaw exactly fofu fofu rek mo mo don mistake bi waaye énicide yi mu amoon mm-hmm. ku ne xam na ne pour askan bi mu ci ci jafé jafé mo taxone waye nak nguur di nguur dafa wara continuer xalaat boobu non indi ci solution pour askan bi ba tok rek palaanaloo nguur askan dara askan bi ñoy am seen plan yi bobu ñoy def seen tey waro nañ fexé ba tontibul ñi am fa four bu nga xam ne nii si nit ñi defarut ñom ñi defar area tontibul am fa costarut vespil yoy yoy da bu ko Boko boko bayel sax uh-huh. kan lay break fan fan bi ni non leen ko décentraliser strategic locations lañ ko def non leen lool la uh-huh. pot nguur fa nga bok si li dundi askan bi nga bok si management bi uh-huh. bok si pexé yi pour mu gëna yomb askan bi daf ci am solo waye rek tok rek tok plan lool sa nit dara si askan dara bu ñuy sonn yëguloo bu ko si amoo si problème loolu dafa yéeme. dafa yéeme maam la la la moom moo ma am fa am fa ñu wax ci lii parce que <laughs> affaire yi moom lii. lii lii lii waruñ koo seetaan muy continuer te maam xam nga ne mu ngi parce que wax naa la at bu nekk dafay am. Mm. waaye léegi lan problème bi tey dama jàpp ne ne nguur lu lu lu lu mu bugg a mu def ko wala li mu bugg a xam-xam ko wala li bugg a def wala mun na koo def waaye lan moo tax situation bu mel nii yàgg ci réew mi problème bi ñu koy dundee at bu nekk ñoo fexé gis gaay nas ay pexé be mëna régler situation bu melni ñaka mburu ak ay jeen ci suñ marché wala ci suñ euh, dëkkin dundé ko sa problème doo ko gis seconde day third day before gos gaay yi dañu wone ñom tamit dañu jël break lakakat yi mburu yi loolu la la ban ma bay nga ñu ci lolu ci jangat force bala ñu xalat ay solution ak yi mel jërëjëf Amadou ok man li ma njëkk gëm rek moy né euh développement. bi ñuy wax ñin duñ ci gaaw a yegg. Hmm. waaw bu dee jikko yi lañuy doxee ñun ñëpp jullit lañ dañ gëm suñ diine yaakaar ne lépp lu ñu ci war dañ ci war a sax waaye jikko yi ñuy dundee mu yàgg fi mu jiitu ñun suñu juddu buñ ciy continuer duñ jógee ci ndóol duñ jógee ci ñaan duñ jógee ci leb tubaab yi calculetal ñeneenti fan balaa julli uh-huh. ba tey di àllarba lay ñu bëri di delluwaat ci seen liggéey uh-huh. nga dajale benn ten thousand every day nga lekk hundred dalasi every day nga lekk two dalasi fan lay mujjee jeex uh-huh. léegi li nga toog ban njëriñ la la amal économiquement yi laa laa wax de ñin lan la ñuy dunda weeru koor tabaski gàmmu ziar. màggal màggal ngénte céet dëj lépp dañ koy toog bëral dafa bokk ci suñ dund dañu gëm ko waaye li ma gëm rek mooy ne am na ci yu nga xam ne segam sa dund sa doole nga ci yaakaar yaakaaroo ci kenn loo toog di wax ne julli naa duma dem liggéey nga ñëw ci bi biñ nekk tey nga xool buñ ne julli nañ weeru koor bési julli. Mm. ñaareeli fan. ñetteeli fan. Mm-hmm. yow doo am mburu buñ ne julli lañ tabaski dina tane ba di next day. waaw bési julli tane bi mooy ne ñu ci ñu ci bëri xëj na dañuy ne nañ nañ dañ liggéey pour ne nit ñi soxla nan ka nga ñëw ci ñaareeli fan bi bu exemple buñ ne tabaski te yow nga xool tey man dama ne ñi nekk ci business boobu sax ñoom ñoo ñàkk fayda mooy ñi fuur yi ak ñi leen di liggéeyal yëpp tay yow Amadou xolal bu fekke du tabaski bo liggey mburu da ngay dem ci place bi ci boutique bi nga fekk fa mburu bu nga xamne dañ ne dafa fanan yow da ngay ne non man bu fresh bi la bëgg. Uh-huh. legui bo nekké ci ay tabaski ak événement yu mel nonu nit ki bu gisé mburu bu fanan sax dafa yakamti pour jandako ko. Uh-huh. of sauce la nit ñi di lek xar yiñ ñu ak jox nit ñi. ñëpp soos lañ yaakaar pour lekk. surtout période boobu mm-hmm. tabaski. période boobu la nit ñi gën a soxla mburu nga dem ci borom fuur yi ñu la ne dañ na ñu doon liggéey depuis démb ba tey. léegi fuur boobu yow nga ne. loolu dellusiwaat si jikko yi. exactly mooy jikko yi ndax ñin pare nañoo liggéey. understand as Gambien ñang wax na ko fi léegi. bu njëkk ñun ñëpp liñ doon wax mooy ne. laal nga foofu benn point boobu naa ci taxaw mooy nga ne as Gambien. waaw foofu tamit dina taxaw ñu samp bala est-ce que Gambien ñoom ñoo nekk ci. industrie boobu wala ñoom ñoo ci ëpp. bari wuñ ci. foofu laay waxee. foofu tamit waaw. non non est-ce que Gambien si. Gambien si mun ngaa moom sa pour waaye ñu ciy liggéey. waaw kanaa loolu waaw loolu laay wax parce que tamit. loolu mooy gis ma bàyyi xel yëpp yu bari ma gis. Mm-hmm. Mm-hmm. ay Gambien si ñoo ko moom. because mostly. waaw li problème mooy ne da nga ko organise. ba mënuloo mm-hmm. jël full team bi ñuy liggéey fi dafa war ko war a liggéey time bi am ko war a liggéey time bi am ñu war a liggéey time bi. surtout dafa a léegi gis nga li ngay wax nii. parce dañ da ñàkk lu bari. li ngay wax nii daf ñu dal seconde julli. ana bu ñu demee ci fuur bi ñi fa nekkoon ci Gambians mut nañ hundreds of Gambians ñu ngi rang wër ci fuur yëpp ba benn fuur lañ dem ki fa nekkoon di liggéey jigéen la te sénégalais la jigéen la senegalis la moo contrôle moo moo contrôloon euh, fuur bi légui ñin ana fan la kooku talu sol ay gram bu dem di julli ji de waaw mu ngi tok di liggéey eh, li fi seconde day julli mu ngi liggéey moy comme li nga wax légui because bu fekkee Gambians are honest way Gambians yi paré wuñ pour liggéey bés bobu ñi tok suñ kër yi né dañuy sañsé légui nga tok di blame nguur wala nga tok di blame authority wala nga tok di blame borom company té yow borom mu ngi la jël liggéey understand nga ba paré nga né ko né bési julli man duma dem liggéey té bés bobu la nit ñi soxla liggéey eh, mburu mi understand nga nekk Gambian yow are you a serious genuine Gambian is a question to ask coming back comme li nga wax la bu ñu ñëwee ci government understand nga gis nga governance dafa laaj li nga xam ne moom moo nekk mécanisme dëgg la yaa ngi koy wax léegi boo demee ci géej gi di seen problème moo fa am understand tey right now ni kobo kobo kobo ñeenti kobo ñu ngi la koy jaay juróom ah, euh, hundred dollars parce que amul amut ndax li tax amut mooy ñang tey boo demee ci géej gi mm. sénégalais yi ñoo fa nekk mm. wala ñi nga xam ne ñu ci bëri ñu ngi ci kaw gi dañuy dem julli ji mm-hmm. ñoom ñoo fa nekk di napp léegi ñin ñi ne dañ soxla pour moom suñ géej gi waaye pare ñoo dugg ci géej gi pour napp ñin ñi ne dañ soxla pour moom suñ media bi on pare wu ñoo toog liggéeyal suñ media bi ñi ne dañ bëgg a moom suñ communication système dañ bëgg a moom suñ moom suñ moom suñ ba pare ñin ñiy doomi réew mi parewuñ pour liggéey bu julli jotee nga ne damay toog ñeenti fan duma dem liggéey fan lañ ko teg ak kañ lañuy hmm. ñuy développe waaye dëgg la ci ne li ñang wax lu am solo la tey nguuru gi fi nekkoon dafa amoon ay fuur am ay place yu ñuy jaay yàppa bu tabaski jotaan bu jaaykati xari di jaay xar 15000 jàmme indi xari jaay leen 10000 pour aji ndóoli ñi am on mm-hmm. nga xaalis boobu fu mu ko doon dugal bu dee poosam la bu dee feneen la koy dugal ñin liñ ci mën a wax rek tey nguuru Gambie mun nañoo jël ci gafak ak réew mi through minister of finance jël ministry of trade ak experts yi fa nekk ne ñoom jula lañ jàng ci xam-xam ñu ne leen léegi nañ jël billions of dollars wala hundreds of thousands of dollars ñu jël ko dugal ko ci wàllu euh, njula gi buñ gisee businessman yi dëgg la ubbil nañ leen bunta waaye pour nañ dimbalee nii di si buñ tegee lu nga xam ne dafa métti ci askan wi nguur gi jël lii teg ko ci ne léegi dañ jaayee xar ten thousand dollars yi comme mun nga dem jand foofu xar maanaam loolu mooy saafara fuur yi ñi teg leen fi fuur yi di liggéeyal nit ñi tey toog nañ fi jamono bu nga xam ne mburu amutoon te du tabaski du weeru koor bu borom fuur yi ñoo bank seen loxo bu nguur amee woon fuur lan la ñuy def buñ tëbee di jaayee mburu fukk ak juróom ñu ne mburu seven dalasi lañ koy jaayee because nguur mun naa subsidize everything lu jëm ci askanam tey waxuma ne mun nañoo dajal ñëpp pour ñu jënd mburu mburu booba de waaye dina am ñu nga xam ne dinañ ci doon mun a gis seen boppa te nguur mooy teg taabulam ci ne lii de lañ koy defee mooy ne defuñ ko pour Adama baro ak poosam defuñ ko pour First Lady Foundation defuñ ko pour diw ak diw waaye nguuru Gambia ñoo jël mécanisme yi yow xoolal mburu ñaata lay dugal ci xaalis ci biir réew ku fi xëy da ngay jënd mburu pour lekk mburu onasan nga léegi ñi koy def private lañ mm-hmm. akri nañ ci loolu tey boo demee dëkk bu mel ni senegal dañ am ay dañ am ay box box onasan mm-hmm. tey suñ local municipal council yi sax ñoo gën a cuune ñu ci bëri mënoon nañ koo def tey KMC mënoon nañoo am four bu nga xam ne KMC la nekk di liggéeyal. on a sand Birkama Area Council nga dem Mansakonko nga dem Siarar on a sand ñi am four yu nga xam ne council bi lay liggéeyal. parce que loolu tamit ñoom bu ñu defee lu mu mën coow di leen fa topp. ban coow parce que jàmmee def ko def coow topp ko ñoom ñëpp loolu la ñu. waay waay waay parce loolu. tamit xam nga tamit nit li sa kanam mais bi doo ko dee gis. amul kenn ku ŋàññi lu ja lu jàmmee defoon lu mu initié doon. yëfi fuur yi am na saafara boo xam ne mu ko doon mu doon am sañoon tey nguuri Adama Barrow ko. waaw li may wax mooy ne. fi ñu ciy wuutee ci gis-gis rek mooy ne. doxalin booba ak doxalin bi ñuy war a dund. dafa war a uute bii dafa war a nekk et transparent système bu nga xam ne. daf laa leer ne KMC ñu koy def. council bi ñoo ko moom lu luñ ci généré dafa dellu to di council government of the Gambia ñu koy def du nekk ne Adama Barrow mooy moom business bi. non du ko moom mu tuddee ko Barrow family. wala tuddee ko First Foundation wala mu euh, tuddee ko man Kamakunda non non soxlawuñ ko. liñ soxla mooy. Gambia Bakery Farm. waaw onosaan nga bu nga xam ne. soppi doxalin soppi doxalin Gambia Bakery Farm bu nga xam ne. dafay euh, euh, Ministry of. trade ministry of trade ñoo yore wàllu njula gi ci biir réew mi mm-hmm. ministry of finance ñu subsidise leen ne ministry of trade de ñu ngi amee four bu nga xam ne mm-hmm. fuur bi mburu rek lay jaay understand nga. te pour réew mi la. pour mi la. understand mm. nga mburu buñ koy jaayee ten dalasi ci biir dëkk bi ñoom mun nañ koo jaayee seven dalasi. wala eight dalasi understand nga ah. because ña fay liggéey. Mm-hmm. dañ leen a employé di leen fay weer. fii fuur yi boo demee ñi ci ëpp li liggéey bi ni muy demee mooy da ngay liggéeyal sa boppa boo liggéeyee juróom. nga borom fuur bi jël ñetta mm. yow nga jël ñaar understand nga léegi nag nga employé Gambian si dinañ di dinañ venture to that business mm. ñi dem liggéeyal fuur boobu because daf leen leer ne salary la ñoo expect understand nga loolu mooy luy yóbbu réew ci kanam waaye bu yëf yi amee bu bés yu mel ni amee boo nekkee genuine Gambien nga bëgg réew mi Amadou sa yaram dafay daw ba da ngay xalaataat ne réew mi du dem man am na fuur yu nga xam boo fa demee dama da dama xulóog ñoom sax may leen yéen bëggu leen a tekki because tey bés bu nga xam ne mburu non non soo liggéeyoon bëgg nañ tekki xam nga ten thousand bread soo liggéeyoon ten thousand bread nit ñi dañ koy jënd xam nga nit ñi système boo nekk waaw ci nu ñoo doxee système boobu lay doy loolu mooy ñoom système bu fi nekk. waaw noonu lañ ñoom tamit ñoom tamit noonu lañ nekk di dundee ak nit ñi. waay waay loolu nag léegi loolu. holistic approach la nekkul benn secte benn fu def ko ak kenn bu ko def askan baal ma rek ma ubbi line si. waaw ma ñëwee ñu continuer because problème bi xam nañ ko ndax loolu mooy solution bi loolu bëgg naa ñu ñëw ci. loolu dafay am solo waaye waa technical mun ngeen wane nombre bi rek ñu waxtaanee ko du géej bi du mburu bi Euh, ak yu mel noonu marché bi sax soo demee tey si marché bitik yu bari ubbiwuñ comme maam nu mu ko waxee ñu ngi ñu ngi feet wan week tabaski ak yu mel noonu wala di noppale noppaleku te situation bi laaju ko euh, te ñun ñi dañ bëgg a dem xëj na ñu nga xamante sax dem leen a ceey waaw loolu xam nga problème bi government bi want li ngay xamee ne tey ñin suñ bopp sax xam nañ di reality of what dem tey yow mi nga xam ne yaa ngi fii yaa gën a jàmbaare téeméeri junne yoon ku nekk Angleterre wala ku nekk Amérique waaye kooku xalaatul lii mu ngi liggéey bu tabaski jotee dafaa dem liggéey bu weeru koor jotee dafaa dem li bu julli jee pare dem na continuer liggéeyam ma ne loolu lu ko leeral rek mooy ne fii fii dafa laaj because tey démb rek mhm. wali nayeg mu ngi daanu fi Wellingara almost am na fa ñaata awas high tension pole mais bi sax amul ñu ko war a ñëw tey te guddi boobu leen ko waroon a defar so loolu mu ngi wane ne ba léegi rek mhm. dañ war a seetaat suñu bopp mhm. event war na tax nawet di toog di incident yi mag yi. high pole high tension thirty thousand. daanu ci kaw pole daanu. ci kaw fa am ay awas ba léegi gisuloo sax benn nawet staff bu war a ñëw defar loolu loolu gàcce la si réew. because of lan ñeneen ñu ngi si julli guddi boobu balaa bët di set waroon na pôle bi waroon na taxaw ñu ceeñ ko indi beneen. waaw waaw so moo tax foofu ñu seen réew mi moo tax waaye am na lii yëpp mu ngi ko def gis ngeen nit ñi dañ indi nguur pour mu mën dëkk bi mën nañ askan bi mhm. jàppale askan bi seet askan bi lu si dox tey jën yi ñoo wax mhm. su nekkoon tey am nañ cooling système bu nga xam ne ni suñu óore na suñu jullee duñu am jën ministre bu trade euh, ministre fisheries saw ma fexe ba am benn count euh, euh, lifin bu nga amount bu nga xam ne ni mhm. dinañ ko mën a def si système bi mu kóol ba ñu gisul ñële sax ñu jaayaale loolu bot amu fii amul fii gis nga nguur mooy gunge askan ñu waxante dëgg Gambien si maam bëgg nañ liggéey bot amul opportunité bi yow tey am na si lu nga am ne bu ñu la ko joxoon nga def ko bot gisuloo ku la ko xelal nguur leen teg pour muy jubbanti askan bi di manaj askan bi di indil pexe askan bi wala fekk si askan bi si seen pexe dimbal leen si bon nguur gu ne nii ah, may friend du mun a dem maawut ma foog ñu waxante dëgga tey tey dem gambien si ñu fa di dóor waar wal wàll ñu ga secteur boo dem ñu fa dóor waar bon ku leen gunge leen amul amul ku leen dimbale voilà léegi baa ñu jël monsieur Cissé jël su ko defee ñu ñëwaat hello rahmatullah bi ñu ngi lay nuyu di la ziar maa ngi ziar bu baax a baax jërëjëf mhm. waaw maa ngi déglu seen programme bi programme bi solo trop trop mhm. man nag maa ngi tudd Cheikh Tidiane euh, maam ci bi ak ñang ñoom foog naa ne su may xarit lañ yow moom sax Amadou suma waaye bu baax suma nit nga eh, euh, ay Afrique nit ñi dañ ko war a gën a mën a rafetlu hmm. ndax kenn boo xam ne yi ngeen def lu am njëriñ ci parce que li ngeen di wax di nga fi nekk ni Gambia kenn toogul kenn nelawul ñëpp yéen lañ di seetaan parce que li ngeen di nekk di wax ni lii mooy jàmm réew mi ndax kat olof dafa wax ne ganaar su toppee kuy taxani dafa gisul kuy bojj ñet nag ay bojj kan ngeen dégg nga kon nag képp koo xam da nga xëy su toppee seen dina regg nag jàpp ne li ngeen nekk bi wax si réew mi nii si affaire mburu wala affaire bi réew mi soxal nañu parce que doomu aadama soo dund doo mën a liggéey mhm. kon nag yéen ñi nga xam ne toog ngeen foofu noonu ngir nekkal si jàmm réew mi ba pare itam dina amee kàddu réew mi dina amee kàddu nit ñi kàddu ndaw ñi ñu ngi naan gërëm bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal yokkute wax dëgg yàlla ndaw yi mel ni yéen dafa dafa jafe ci réew dëgg dëgg ba pare ñuy ñaanal itam ñi ñu xam ne mooy borom télé bi laa ñu kante man jaar naa fa yéen am ngeen ci dara mhm. soo gisee ñun su dégg nga soo gisee tey Gambie yëpp naan Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane beneen télé mhm. ay Afrique dégg nga ay Afrique moo tax ci lañ xamee ci lañ dalee baax ci lañ xamee lu ne kon nag ñun duñ fàtte démb ñu leen di gërëm bu baax duñ gë di gërëm suñu sëriñ euh, sëriñ seet kebe ci Mbàññaaka mm-hmm. waaw su ko defee nag di leen ñaanal yéen ñëpp jàmm mam jigi jàmbaar ngeen ñang Amadou wax dëgg yàlla Gambie yëpp dañ leen war a jox cër Gambie dañ leen war a gëstuwaat bu baax ay nit ñu baax ngeen ñu am xam-xam ñu am dal di wax lu rafet wax ñu dégg réew mi dëgg dëgg nit ñi xam nga nit ñi nañ leen bàyyi xel waaw Lamine Kanté jërëjëf sa liggéey rafet na réew mi di la ñaanal bu baax di la ñaanal jàmm ak salaam di la ñaanal yàlla dégg na suñu bàkkaar yëpp defal ñu dëkkuwaay waruwaay yéeruwaay xoddaay xol sedd yaram sedd ñu mucc ànd ak mos si barke huwa al awalu wal axiru wal zahiru wal batinu bi kulli shay'in amiin jërëjëf jëf kontaan naa bu baax a baax a baax a waaw wallaay am njëriñ jërëjëf jërëjëf euh, mbégte la euh, euh, kontaan lañ déggee ku mel ni comme moom ñu ñuy mm-hmm. a rafet la moom it ñu ngi ko ñaanal rek ñu ngi ko ñaanal séedoo yëpp waaw borom baax la maam dama balaa beneen koola di ñëw rek soxnam ak waa ah. këram sunu ay cousin sister sos ñoo allah waa Ramata ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu jërëjëf may ak borom këram ah, ok commune ñi ñëwaat ci bi nga nekkoon waaw ma mel ni support ngay wax ne loolu la ndaw yi làkk Oke, war a gunge Pak lii. ok nga ba ñoom dañu war a dox bu fekk manque mooy liggéey. Pak, ba ok ba baal baal ma ñu ñu ñu ñu jël Mr Ba Mr Aliou Ba salaamaaleykum ñu di la welcome ci programme bi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. naka naka suba si. seen liggéey rafet na invité ngeen ñëwaat ngeen ñëwaat si ngeen ñëwaat beneen waa joo xam ne dafa neexal yéen moom macha allah yéen a ngi liggéey bu baax a baax a baax. jë jërëjëf jërëjëf. waaye xanaa ma toll dafa laajte bu utal ko taabul léegi. waaw man affaire mbuuru bi ak affaire jën bi. Mhm. exactly waaw. waaw ñun jën bi. Sénégal yaa fa nekk. mbuuru bi. forêt ñëpp a gën a bëri. mooy mhm. pulpute yi dañoo julli. soo borom fuur yi dañuy wax employé nit ñi. Mhm. da nga war di am sif sif boo xam ne da ngay liggéey ba di julli ci liggéey ba di julli waaye ñoo xam ne yow every every year Gambie every year mburu problème la comme lay léegi nii amuñ sif waaw borom mburu borom ful ba ñu leen lor ci ñu di employé de borom ful moo war a employé ñuy lekk mburu ba ci julli mhm. ñu ne kii yow yaay liggéey kii mooy liggéey dee afta kii mooy liggéey dee afta mhm. waaye ñun you ñun always ñun africain e muru problème muru problème ñu ci ñëw muru problème jël problème ñu di sénégalais mo demati mat bi fi ñu ngi séré la goor séré ñepp ñepp nekk ñepp ñepp nekk hmm waaw ñun mom ñun mom muru dara ñun mom gambé muru dara ñu mo ci bëri ñun rek ya waaw waye ñu ni wara sérat mbokk ba ñu liggéey waye ñun ak pays boy ndaw la ndaw mo am rek mu nañ ko liggéey mu nañ ko dund mhm. waye ñun fi ñun ci dañ añaan dañu mëna liggéey bu ñu yo liggéey dara dara dara dara dara jërëjëf waaye moo ñang macha allah jërë ngeen jëf ak sa waa ji Amadou Wa. jërëjëf seen liggéey euh, am am na solo léegi ngeen waaw ngeen ngeen baal ma rek balaa ñëw continuer. waaw fàttali gars rek ñu ngi euh, ànd ak ñun ci Good Morning Africa programme bi den su ko defee euh, ñu jël tamit short break rek den su ko defee ñu ñëw continuer. Eh, program bi ñoy ñoy jéxal euh comme dañoy jël short break rek dañ su ko nefé ñu ñëw dañ ñu ngi ci point bu am solo te dafay bax ñu eh, pause shortly then we come back and continue the program. we'll be right back. ndax yaangi ngi am gàllankoor pour seetaan ay Africa TV. Assalamualaikum, askan wi ñu ngi leen di waat fi ci ay Africa TV seen benen jotaay eh, musul. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ci ay Africa TV seen programme jamono kay ñu ngi leen di nuyuwaat benen yoon fi ci africa tv am amadou ntol bele ya moy wonyama ay mun programme be kaf moko biti do mi kana lungo lu kabo tan lungo fo ci malu ay africa tv ñu ngi lay yegal ne mun nga ñoy joté ci satellite yi mun nga sétane suñ channel bu SB ay africa tv plus soxlawulo dara ludul dugal frequency bi nga blind scan sa receiver bi sa satellite bi doko toxal do push do pass nga jot nga xam ne moom moo nekk li nga soxla boo ci munta am jokkool ak mba téléphone bii ñi saafaral la lépp lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk sa aajo alright welcome back su ko defee ñu dellusiwaat comme ni nga ko waxee woon gannaaw euh, short break boobu ñu fàttali beneen yoon rek ñu ngi ànd ak euh, Africa TV euh, seen Good Morning Africa programme bi nga xamante ne suba bu nekk ñu ànd ak yéen waxtaan ak ci réew mi ak luy xew ci réew mi tey nag ñu ngi nekk di waxtaan point yu bari ah waaye nag fu ñu nekk mooy lu am solo. mooy liñ euh, yàgg di gis ci réew mi bu euh, yenn xew-xew yi amee ci réew mi lu mel ni comme korité ak ay tabaski ak yeneen euh, events wala événement dañuy gis ne lu mel ni comme mburu ak ay jën dafay ñàkk ci réew mi ñu gis na comme yàgg naay am daanaka ñu ci war a taxaw taxawuñ ci surtout nguur gi defuñ ci dara jàngat amul ba ñu war a solve problème boobu loolu la war a nekk di loolu la nekk di waxtaan ak ñu jàpp lan lan la ñu war a mën a teg ci table ba gis ne lu mel noonu dem war nañ koo mun a saafara ci réew mi parce que problème la te problème bi amee dañ cee séntu lan mooy saafara solution war naa am ci every situation euh, li ñi di dund te ñu jàpp ne euh, mbir la wala jafe-jafe la yéen tamit ngeen bokk ci waxtaan bi nomba baa ngi noonu sëñ mi fi génn léegi daf ne waaw saafara bu faj jàngoro. waaw da koy tuur da koy tuur. waaw léegi nag comme gis nañ ne li fi nekk. jàngo saafara si fajuwul. waaw nañ ko tuur ñu demaat rooti. jël euh, nu mu tudd ci kayit yi dugal. sotti ci ay spray yu ees. <laughs> commencé waat raayu. Ah. nga bàyyi ñu jël si si next caller Mr Birane Diouf mu ngi ci laan bi hello salaamaaleykum mu ngi ñëw collègue Costa Road hello. hello salaamaaleykum. Halo. Wah, dafa mel ni déggante bi yombagul allo. yes hello salaamaaleykum. yes. sa Diouf ñu ngi lay nuyu. ñu ngi naa leen si suba si. jërëjëf ñu ngi si jàmm bu baax naka nga def. di leen di leen di woon waaw fekkee déwén bu baax a baax a baax. amiin yal nañ ko yàgg a fekkee. waaw man na xam naa ne programme bi du ma si sori man li ma def mooy mooy dama leen bugg a tànk si yéen delloo njukkal jërëjëf jërëjëf waaye dama kontaan trop man ay Africa definitely man um, télé yi jiitu nañ leen waaye dama ne yéen yéenay number one because di programme yoo leen dee teg. Mhm. am na solo trop. waaye li ma bëgg a pour am ña euh, euh, contribuer si programme bi dama bëggoon ngeen a. Uh, comme waxtaan yi ñu ma waxtaanee nii ngeen indi comme Sénégal lu ñu def seen débat yi indi ministre o indi koo xam ne. Mhm. dafa responsabilité lii. Mhm. ngeen teg ko ba pare di ko laaj question na nekkat question yoo xam ne nii tamit du du du easy si ko am yi noonu. Mhm. te ngeen ko koo dóor ba mu xam ne nii lii tàng na si ko am moo xam ne moom it lii responsabilité am la. dëgg la te daf ko war a tontu. am nañ am nañ mun a xam ne def na lu moo lu moo liggéey. tey tontu na ko. waaye ñun buñ dee am façon yooyu soo dama bëggoon daal ngeen a indi gars yi leen di teg fii ñuy seetaan mm-hmm. affaire yi a comme ni ngeen toogee nii yéen rafet na trop yéen a ngay joxe ay idees waaye soo leen ci tegoon kenn ci ñoom dinañ ci happy trop man billaahi dëgg la kontaan naa trop rafetlu naa seen programme bi jërëjëf Mr Diouf ñetta ñi moom macha allah di leen di ñaanal fan ak wér ak bu ju rafet ah jërëjëf amin yaa rabbi jërëjëf jërëjëf wax nga lu am solo eh, di war ne iya. léegi léegi nag dañ dee def ay attempts invite rek nit ñu ñëw pour ñu waxtaan ak ñoom waaye léegi eh, iya, léegi <laughs> gars iya. yi teew bi dafay pour ñu ñëw Sénégal xam nga ñoom dañu sawar a dem ci media discussion ki am responsabilité waa responsabilité seen boppa réew mi nag loolu moo fi jafe parce ah. que wax nañ ne fii ki fi ku yoree kaddu nguur gi pour nga am ko ci plateforme yu mel ni problème la dafa tànn fu muy dem. so so loolu moo nekk issue. Sénégal du ministre du directeur du spokesperson. Mm. even du mayor du mayor everybody want to be on the platform to be heard. liñ la denk nga wax ko nit ñi dégg ko. Mm. because ku la ku la dénk tamit daf daf laa dafay déglu askan wi. Mm. ñu déggee ay jafe daf laa wax ne eh da ngay war a dem because jot na fi pour mu wax na Sénégal Macky am na période bu mu wax ne dafa ne gaay yi ku ku defee programme nguur gi da ngay abale. yow lim la lim la dénk da ngay dem nga defend ko parce que opposition yi li ling ci def opposition yi mhm. dañooy dem ñu wax ni li doxul dañooy wax fi tamit opposition bi moo tax na na gaay duñ de wax mhm. waaye ñu wa ta ta pour wax ko sax ni am nañ plateforme yoy tamit comme nim ko waxe nga bal ju dem fuladu ah. ñëw wa c'est malik don ko sare am don ko sare am assalamu alaykum wa alaykum salaam Amadou jere jeuf ñu ngi lay nuyu ba di la wax dewe nati waaw yàlla nañu di leen wax leen itam déwén na fi yàlla nañu fekkee déwén ak jàmm. amiin amiin yaa rabbal aalamiin déwén na dàqal ñu ren. amiin amiin amiin. ay téeméeram. amiin. ay Afrique mel ni CNN. amiin yaa rabbal aalamiin. yéen ñi fa nekk itam yàlla fasal leen. amiin yaa rabbal aalamiin. di jaay Muhammad Rasulullah yokk seen fan yokk seen wér-gu-yaram. ña ki nga xam ne nii yéen a wax yaramam bu sutaate woon gisaat nañ ko kontaan nañ bu baax ko ci screen jërëjëf waaw ah di Amadou. Mm-hmm. Eh, seen lan seen eh, task point bi man si laay njëkkee. waaw mm-hmm. comme sécurité réew mi. Mm-hmm. man dama am lu ma jàng lu nga xam ne nii ñun balaa ñëwee sécurité bi di jóg rek dafay fekk li xew xew na ba pare. nga sogaa nga gis police sogaa jóg wala armée bi jóg wala paramilitaire yi jóg. fekk li xew xew na ba pare. yoo sax eh, bi ko julli bi dafa am benn incident bu xewoon boori boori boori saamee noonu. waaw. ok léegi euh, fan yooyu passé rek ma gis euh, parents yi ñëw ci saay bi nii ñu commencé dem ci booda bi dem ci booda bi. Mhm. waaye man am benn bés boo xam man ma bàyyi ko ci kaw ba ci guddi maa ngi dem Ndiobène. Mhm. ma fekk ay gars yi nga xam ne ñu ngi ci kaw yoon bi bi ma koolee police wax leen ne am na ñu ma gis fii nii te de ma ñu tey ñun amuñ moo tax amuñ benn amuñ benn téléphone boo xam ne mën nañ ko demee ci mhm. kon da gis ne ñoom am na luñ manqué leen lu nga xam ne lu bëree bëri la mhm. amuñ moto buñ demee amuñ weapon su fekkoon ne dem nañ sax ñoom seen bopp amuñ amuñ gànnaay bu nga xam ne moom nañ war a demee attaque ay bandi wala su leen gars yi attaque wuñ amuñ gànnaay dëgg la kon mhm. xam nga foofu lost government moo def foofu noonu mhm, ñaareel bi ñaareel bi ci li ngeen wax ci mbiri euh, buuru beeg yooyu noonu dëgg la foreigners yi si waaye di nga ñi nga ne ni ñoo si ñoo si ñoo si ñoo si gën a war a contribuer te ñu ñu ñu des si gannaaw mooy ñi nga xam ni ñoom la ñu woowee booy town comme Serekunda mm. Banjul seen xale yi. waaw su ko seetloo tey euh, tànjee foofu boo demee mostly ñëpp nga fekk. ñëpp mm-hmm. waa waa waa waa waa Fule du fii nii waa CRR euh, euh, jëm na ne jëm ba si URR. Mm-hmm. booy si nekk foofu tànjee foofu yëpp ñoom ñoo nekk foofu di napp. man xam naa si dara bi ko soo dama dee dem foofu noonu. waaye bu dem fa nga fekk fa doomi Serekunda wala nga fekk fa doomi Banjul doo ko def. soo demee si ñëw bi doo fa fekk doomi Banjul doo fa fekk doomi Serekunda ñu ngi faa fekk rek kaw kaw yi lañ faa fekk te mos ni ñun waa kaw gi su fa demee di liggéey rek lañ ne askanale mooy yéen sénégalais nga mhm. te fekk ay gambien nañ comme ñoom mhm. waaye ñun làmmeñ bi suñ làmmeñ yi parce que loolu sax ñun euh, suñ maam yi bàyyeekoon Sénégal ñëw fii nii làmmeñ bi nga xam ne ni moom lañ indiaale woon la làmmeñ yi Sénégal la léegi ba la tax na loolu xaaru na bi nga xam ne nii soo ko seetee si maam moom mhm. kay làmmeñam bi dafay boo boo ko déglu da wax ne kii kii daal sénégalais la dëgg la goso làmmiñam bi olof fi fi mu nampee olof boobu noonu moo moo mooy namp ci Sénégal. Mhm. waaye waaye ñun li ñu askan la ay sénégalais lañ fii boo fi ñëwee fii borom métier yu bëree bëri fii si tas ay gambien lañ. Mhm. waaye ñu leen jàngal métier bi ay sénégalais lañ. jërëjëf. waaye amuñ ndimbal si government dina nag. amuñ mhm. ndimbal de. jërëjëf. waaw ah, waaw jërëjëf jërëjëf sëñ Malick euh, Boy ñu ngi lay gërëm baax ci contribution bi am na solo. Mm-hmm. Euh, waxati na lu am solo ndax nag li mu yàgg euh, saa yu mu contribué dafay wax lu am solo. lu am solo te bi tamit wax na. Mm-hmm. te kilifa yi ci wàllu police bi tamit war nañ cee mën a baaxee nguur gi ñu dimbale gaay ay jumtukaay léegoo léegi ñu nekk ci kaw gi dañuy am ay jafe-jafe yu mel noonu mm-hmm. te loolu tamit war nañ ko mën a ah, bàyyi xel waaw da nga leen yërëm ñun foofu lañ juddoo foofu lañ yaru te gis nga li muy wax nii c'est trend bu nga xam ne ok Gambians yëpp dañ ci war a dañ ci war a jàngee dëgg la majority of tey boo xoolee ñu nekk ci fuur yi uh-huh. ñu ci bëri wala ñu nekk ifin ci wàllu jaay yàpp bi uh-huh. ñu ci bëri ci kaw gi lañ dëkk on sàng uh-huh. wala ñaw bi muy wax nii métier yi léegi nag ñooñu dëkk ci kaw gi soo war a julli ji rek ñi foog na yow benn sénégalais nga ci kaw léegi ñi dëkk fii exemple ci Greater bi ñu ci bëri ñoom foog nañ ne pour nga liggéey office nga war a nekk wala ministre wala directeur wala permanent secretary on sàng léegi nag bu fekkente ne dañ ne dañ war a moom suñ boppa doomi Banjul baag doomi Serekunda baag doomi Birkaama bi ñëpp ku nekk ci ñoom dafa war a gëm ne war naa puus puus puus war naa dem taxani matta war naa toog si machine ma ñëw war naa rendi nag ma dem si fuur ma liggéey hmm. buñ ko defee tey ki dëkk fuladu ah. bu demee julli ji fuladu ki dëkk Banjul dina toog si fuur bi liggéey wanasaan nga léegi loolu mooy problème xoolal man yenn ay ama dama koy jàngat gis nga bu nekkul événement sax damay xool réew ni muy demee ma ne kañ la ñuy dem xam nga ne yow tey daf la leer ne guddeeg bëccëg oto yaa ngi daw. on uh-huh. sàng fii tey am na ñu nga xam ne six o'clock ñu wàcca ku sa moto panne six da ngay dem. dox ba ëllëg nga doog a li nga doog a liggéey. wala nga kool pompe pompe oto sax oto. ñiy toog di pompe ci kaw yoon yi ñu ci bëri daanaka ay sénégalais lañ ñi ci nekk doomi Gambien wana san wala ñi nekk ci système bi sax da ngay gis guddi tey mu leer la ne weekend fii. Uh-huh. samedi ak dimaas nit ñi dañuy liggéey dañuy dem di dox. di dem ay programme bi goudi waaye pour nga pomper sa moto sax waaw ñu jël ko nga ñu jël Mr Bodia mu ngi ci line bi hello alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah jere jërëjëf sa bodia ñu iya, eh, ngi lay nuyu sëñ Amadou ñu ngi leen di nuyu jere jërëjëf ñu ngi laa fay eh, di nuyu team bi yëpp mo ñang maam Jibi mhm. ak seen sister bi day jox léegi léegi wa team bi yëpp Lamine Kanté ñepp ñu ngi leen di jere jërëjëf di len bëggee bu baaxa baax jërëjëf euh, di rafetlu seen euh, Good Morning Africa bi. Euh, di leen encourage. Mm-hmm. comme niñ ko dee followee rek. Mm-hmm. yu important issues ngeen dee ngeen dee toj. Mm-hmm. te daanaka loolu lañ soxla. dëggal di seetlu seetlu ay jafe-jafe seet niñ ko saafara. Oh. Euh, euh, de euh, moom mun ku soppe la ci kër gi. Ah. waaye tamit ku toppa programme bi la bu baax a baax. saa yu ñu dajee moom mu ngi si cabinet bi ngi ko dara moo ngi ci tamit ci soriwul kër gi. <laughs> ñu ngi ko jaajëfal ba Mr Bojang ak brodam tamit mu ngi outside waaye moom tamit. am na mu ngi fi sax taay démb ah, rek gis naa ko. Oh, ok dama ko ne mu ngi fi taay waaw. ok dama hmm, léegi rek ñan tey fi nga ah. toll nii yow daanaka yaa ngi Costa Road man maa ngi laati Kunda Amadou mu ngi bundum artisan nga tey demal nga wër amut fooy gis right now nii taayamaan buy liggéey te moto yaa ngi daw moto yaa ngi paan nit ñaa ngi soxla pour pomper ku sa moto paan léegi da ngay paak sa moto fii te boo yaakaaroon pour nga liggéey léegi boro fii te yaa ngi tëdd seen kër yi te ñoo ñooy toog ëllëg di la jooyal ne dëkk bi dafa métti understand man wax naa ne nguur gi defuñ li leen war because mécanisme si ñoom ñoo ko war a teg in place understand ñun ñëpp we agree with that tey boo ñëwee ci yëfi mburu maag yëfi euh, trade industry bi san nguur gi dafa war a mécanisme yu nga xam daf ko war a teg mu indépendant nguur tamit dafay dellu dafay dañoo delluwaat nguur yi ñoom ñooy ñun ñooy nit ñi loolu la nga tamit soo déggee nguur nguur mooy <coughs> nit ñi tamit waa réew mi parce que tamit gi nguur gi mhm. dina dem wax nga li xew a loolu la man ay blame os man ay blame yow nga jàng sa métier maam ji nga nekk nga mun. loolu nguur mënu si dara de waaw nga liggéey wan kenn moo lay forcé nguur mënu si dara loolu tamit jiit ko bi la. système bi pour nguur ñi may wax ñu jàppale Amadou mooy ah. am nañu pare pour liggéey waaye amuñ support bi. bi waaw loolu ci yenn fànn la yi nga joxe nii. loolu tamit nguur mënu ci dara loolu yoonu nguur nekk si parce que maam ji bi moom loolu suñ jukko yi la loolu war a ceeñ ku jàng métier am ubbiwut loolu nguur mënu si dara ba dafa am lu nguur wara a askanam askan bi lu ñoo dundee responsabilité nguur la pour mu manaj ko pour mu am res taxaw ci taxaway bu am solo bi tax askan bi am ko nu ko bëggé lolu mom nguur mënu see génne la absolument li nga bal ma jël ci la scola bi rek baataa ñu ñëw ñu ñu tënk yëf yi hello Mr so yes waaleykum salaam yes ñu lay welcome bu baax ci programme bi waaw man dama bëgg xam yëpp sama wala. la allo. yes maa ma. waaw ñu ngi lay ñu ngi lay déglu bu baax. ok damaa programme yes we welcome. Mhm. waaw regarding the issue ngeen wax nii ni léegi si. Mhm. alors. yes yow rek la ñoo déglu yow rek la ñoo déglu. continue waaw la nga in Nigeria here you know that they are not living in a in a peaceful situation so ma compare ko ak Gambia fii nii. Mhm. So, you know, Gambia, we haven't experienced such things, you know, if I can remember. Yes. So this is the higher time by, you know, whereby we can, you know, we can do a lot because there are other countries like, you know, Nigeria, they are, you know, democratic situation, mm. peaceful situation. So mm. that is affecting really their economy. So here, everything yeah. is all right. Mm-hmm. Everything is stable, you know, Jamamung So Gambians, want to try new league. Mm-hmm. Yes, this domestic work, you know, like uh, let's say this factory, Yampuri, Akene Bagasi, yep, you know, Lumbati, yep, for for foreign foreign yoko Okay. So lolo mo da julli so amé after julli gaay dañ dé dem dal so after they empty, so mburu ñaagi dem mburu da be market amé on understand. Mhm. Yeah, so Gambia we will stop looking at this domestic work as low job. Yeah. So guys, learning for some time, you know, job being the overload. So man, do not So this level thank you bu yeah so you are working so you know we here thank you even su nekkee sax school you know the hour war a you know, you will help yourself. Abs absolutely. Mm -hmm. Than, than, than totally depending on people. This is really affecting us, okay? Mm -hmm. Yeah, man, man, man, All right, thank you. Thank you so much, Mr. So. Jerejef, Jerejef, contribution. Thank you. Mhm. thank you euh, ñu gërëm leen yéen yëpp ci contribution bi am na solo moon ña ñu daaneel rek yaa ngi nekk waaw ñu daaneel li ma ok maa ñëw mooy ne right now mhm. euh, minister of fisheries change nañ ko oncle Moussa I think moo fa nekk Dramé mhm. si fekkee ne amoon na ndaw yi Gambie ñu jàppale because olof yi den ne di ma may jën everyday jàngal ma nu ñu nappee dafa jot nag pour lii dafa yàggat jàmme jooy na ko fi ba dem ñi jooy nañ ko fi five years yan pexe la nguur di teg pour ñu mucc si lii it's their responsibility ñoo ko war a def te mu ngee continuer te mu ngee continuer mm. léegi ñeen ut ay machines yi gaal mm. waaye not ñu jël ay Sénégal fay la ñu jàngal ñu ni ñu nappe mm. suñ demee julli ji ñi napp mm-hmm. soo loolu mënta nekk nguur responsabilité nguur la mm-hmm. pour mu indi ay machine yi gaal mm-hmm. ñu meeg soo ne ay ndawi Gambien leen ko jox pour bu ñu buggee mucc si loolu second li mooy ne nguur foog mu am ay mécanisme yu mu teg gunge askan fekk leen fu ñu nekk fekk kuy liggéey jàppale ko gunge ko loolu dafa am si nguur. fekk nit ak xalaatam au sa nga xalaatal askan ñi dem ba doo mun a toog rek bàyyi sa askan. ñuy jokkoo ko daanu def lu ne euh, département buñ buñ buñ bu nga xam ne foofu leen jokku ñoom. kooku toog xamul sax ñii lu ñoo yëngu. loolu laa ne dafa doy si réew mi askan bi dañ si doyal. ku si nekk da nga war a jóg. li la war. Mm-hmm. département bi ñu la dénk. Mm-hmm. sañ ñooñ. fexeel ba xam lu ñu yelloo. nga jàpp suñ ko defee réew mi dina dem. am ko war a change système bi dañ ci ñëwaat beneen yoon incha allah euh, maam lu ci mburu bi mooy ci jën li jafe-jafe waaye saafara war naa mën a am just uh, in 30 mburu maag jën yi lañ lim waaye li ci dëkk bi yëpp benn jikko baa ci nekk <laughs> li may wax rek mooy ne ñin nañ soppi suñ jikko mm-hmm. nguur tamit nañuy am yërmande ci seen i ñoñ sóoraale askan ne li ëpp ci yittey askan wi bu fekkee téeméer la juróom fukk ak juróom bi yëpp yaakaar nañ ne ñoom war nañ cee dimbale askan